Ama Modou Lo lamb jooju moom yaakaar naa koo ci ne waxal rek mu daw xëy na tey Modou dina wax. Ama Baldé xale buntu kër maamam la bëree combat bi bu dee foofu la lamb ji jëm. Ama Baldé mooy recevoir Modou Lo à Pikine. bu dee foofu la ñuy bëree. histoire nag am parce que parcelle écurie bi ñu ko formé Xaadim Gajaga Malick Mbaye mitrailleuse. ñooñu mag ñooñu. Kër Fallaye lañ jàngee bëre. Zos histoire dafa garaaw de. <laughs> ñoo ñooñu jàngee kër fallaay bëre tey te Modou Lo bokkoon ci ñi nga xamante ne baabooy daan na leen jàngal bëre. Mhm. dafa garaaw baabooy kër Fallaye la jàngee bëre. Fallaye la jàngee bëre daan géewal Modou parcelle. daan géewal biir parcelle. Mhm. comprendre nga. Mhm. am na benn combat baabooy sax boo xam waaruk énergie ñoo ko indi su ma juumul contre mbay Diouf je sais pas. muy combat boo xamante ne ni xale bi daa nekk ci yoon. dafa ñëw ne damaa bëgg a dem ci kaw. fi samay mag nekk laa bëgg ne. sama papa daa mënoon ci làmb dama bëgg a bokk ci ñu mën ci làmb ñu ne ko looy def mu ne nañ ma jox samay moroom ma bëreeg ñoom mu bëreeg ñoom daan leen nees moo ko ci daan ak guy gi te gis nga fi mu jaaraat ak nees fi mu jaaraat ak guy gi muy xale boo xam lu mu sa taxal carrière am setal na ko xale boo xam ne xale boo am fulla am fayda am public ama yaa yëngal pikin yaa ngi koy dégg waaye nag di dajeeg nag a ah, que kenn mënta natt. daje ki nga xamante ne nii bu ñëwee stade nga xamante ne waa parcelle moom lañ bëgg. ndax am na lu am solo loo xam daf ko indi parcelle. Modou dafa dundalaat parcelle comme ni Balla Gaye dundalaatee géejawaay. sama attaquant baa ngi noonu de yow lañ yaakaar de barki Rasul laay boo ñëwul woon mu ñaaw de tey la ay waay booy am ngeen problème <laughs> ay li ma gis ci terrain bi ay waay lii oh amoo leen chance vous n'allez pas gagner aujourd'hui combat hmm. Modou Lo. Hmm. Paul Maurice dama koy seetaan di jooy. Hmm. ndax day bëre di xeex. combat Modou Tafa Boy Bambara Modou Modou Papa la fa Modou bëre. <laughs> Papa Sow da daw jël tànk ba mu def ak ah Modou Lo mën a bëre. Modou la mu fa bëre lu rëy la. Uh-huh. muy ndaanaan. di ko xamante ne nii dañ ñëwoon tolloo wala ñoom du yegg ci seen niveau. Uh-huh. mu dugg ci seen bëre seen biir di daan ñii ñii di ko daan muy daan ñii ñii di ko daan ba tey mu nekk ci kaw. yal na ko yàlla defal jàmm. Mm-hmm. doomu Taïba njaay bi. mais loo ci mën a dégg daal c'est un combat boo xamante ni nii ah ah ah man daal li ma jaaxal mooy ko ëpp doole. Mm. ku ëpp doole yaay daan. Modou Ama ak Modou loo ci xeex. boo doon joxe favori ci xeex koo jox favori ci Ama ak Modou Lo ci raak. Modou loo mm-hmm. laa jox favori. parce que li Modou xeex Ama xeexu ko nag dañuy waxante dëgg rek. Mm-hmm. da ma laaj ko waa ñu analyser professionnellement. li Modou xeex ama xeex ko ñi xeexal ama xeexul ak ñoom. ci bëre ci bëre bi ama am na ci chance. parce que boo seet loolu laamam yu bari ci bëre lay jeexee. boo seet loolu laamam yu bari dina tàmbali dóor mais day daw jël la pour bëre si. xoolal diggéem ak Malick Niang keroog Malick Niang da koo dàq. mais fexe na ba maîtriser ko ba contenir ko daan ko ci bëre ama. li chance am ci bëre bi mooy day song te Modou ku ko song parce que doo ko indil problème. Mm-hmm. saa bu ko Balla songee indil ko problème. parce mm-hmm. que Ama du xool ci loolu jaar foofu. Mm-hmm. je donne ma langue au bu bis baa ku song. ku bis baa daal làmb jooju képp doole yaay daan ay technique yi yëpp doole yaay daal doole. doole jooju lamb lamb doole la. daa képp doole yaay daan parce que dañ ne Modou Lo magul Ama Ama ne Modou Lo ma mag. bëri nañ mbapat ñoom ñaar. ku ëpp doole yaay daal lu leer laa la wax. lu fa mystique yàlla nañ dugg ci làmb ji gaalaa ji toj. siyaar. bëggeeti sang yaaram dooleeg bëre des fa. dooleeg bëre des fa. Hmm. kopp doole yaay daan bëre ba balaa feeñ doole ji wane boppam. Hmm. ci biir làmb <laughs> lu garaaw làmbaloog la moo tax bu waxee ci làmb dañu koy nangul ah waaye mu dañuy tëjee ci benn point boo xamante rek keroog dañoo demoon ki nga xamante ne moo di conférence de presse Keba Kanté yaakaar naa ko mu nekk loo xamante ne xëy na làmb ko bëgg wala mu manqué li nga xamante ne yaakaar naa moo di charte yi nga xamante ne CNG daf ko teg ci li nga xamante ne moo di làmb Keba Kanté bëgg nañu indiwaat li nga xamante ne moo di 10 litres bi amour challenge bi làmb amoon suñu cosaan li nga xamante ne tey waaw nee na làmb dañ ko nasaraaneel de trop mais pas suñu cosaan ñun sénégalais à 100 pour cent niñ ko professionnaliser niñ ko bëgg a professionnaliser moo metti làmb mbër yi dañuy dëkkante yow biteel ba ngay wax rek biteel ba sax sori na dëkkante danaan am ci làmb mbër yi def ay action ku ne fecc ñi daw jaar nii ñii journaliste daw topp ñi kenn mënatu ko CNG tere na ko ku ko def ñu daggala la waaw waaw mosa gi da ngaa gisati dëkkante 10 litres bu dootu ñëw ku ko indi ti ñu dagg la mais xanaa loolu comme dañ ko doon tere ca Demba Diop bu ñu demee ba am suñu arène nationale xanaa war nañ ñu ko mën a delloo si. te nationale ba dañ na suuf si ndox mu fa dugg mu contenir ko ndax am na ay régal ci suuf ay tiwo. waaw kon xanaa mbër war na mën a indi paan. waaw man kay dama doon xalaat bëri ko sax comprendre nga. muy loo xamante ne nii lu doy waar la yi CNG CNG culturellement li mu ko xaw a wàññi ci làmb bari na de. Mhm. culturellement affaire yi mu dindi ci làmb xoolal Ama Baldé mu xëppoo di litre ba yow affaire bay génn ci biteel ba Modou Lo yor biteel di litre bi ñu naan ma ngay sekki ay bàyyi ma waay am na loo xamante ne nii dañu ko delloo sa ñu ñoo ko moom ñun ñoo ko moom suñu yëf la wax dëgg yàlla xëy na loolu des fois ñoom dañ jàpp ni temps lay jël wala xam nga mais bi laay jëlul temps nañ ñu ko indil. am na koo xamante ne dagg na billet mais bëre ba yóbbu ko wala dara yóbbu ko mais cosaan bi du am ci làmb mu koy dund looloo ko dugal ci stade. sama papa nee na Mbaye Gueye bu daan bëre si buy dugg si stade bi day fees dell. Hmm. bu tuusee stade bi am wàññi am ñu wàññeeku ndax lan tuusu Mbaye Gueye lañ indi woon. Hmm. naa dajeeg nit boo xamante ne si làmb damaa dajeeg moom làmb Ama Balde Demba Diop muy génn di ñibbi. puisque man bu làmbaay mais dernière minute lu ci ëpp du ma nekk ci biir saat bi damay wër. ci biti. di xool yu fa yu fay ruus ma for ko. waa ji ñu daje muy génn di di daw ma ne ko sëñ bi foo mu ne damay ñibbi. ma ne ko lan la mu ne ma li ma fi doon indi jeex na. Ama Baldé jaan bi mooy bi mu bi mu jëyee indi jaan bi dama jaan bi laa doon xool génn na dam dem naa ñibbi lii rek ma fi indi dafa am ku ci nekk li lay lay dundal. culturellement yi dundal gaañ nañ ko nañ ko def quoi mhm. dina am solo. nañ ko def dina am solo mbokk yi noonu lañ ko dalalee woon ah, moom mi nga xamante ne ni ma leen ko waxee rek ndaw la loo xamante ne mi ngi ci lépp mais loolu avant maa ñëw ci point boobu sax dafa am ci lu ma bëgg a ñëw Modou kan la ñuy jox CNG. xam naa ko mais du ma ko wax. Oh? du ma ko wax. Modou nee nga ki ñu koy jox xam nga ki koy joxee xam nga yow xam nga nu mu demee noonu. non du ma ko wax nañ bàyyi noonu damay bañ ñu woowaat ma. dañ maa woo woon. dañ laa woo bi war nag wax la ki ñu nommé. damay bañ ñu woowaat ma bi ma waxee dañ laa woo ci réunion bi nga xamante ne bi war a da laa wax ki mu war a xam ne ki lañ ko war a jox. non non walaay dafa am nu mu demee rek ci suñu biir man damaa bokk réew mi doomu réew mi laa te làmb dama ci am cër. da nga garaaw. làmb dañ ci am cër suñu alaaj Bécaye Mbaye suñu papa. Mm-hmm. am na fu mu yóbbu làmb. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. mais daal loo ci mën a dégg rek CNG moom ki ñu koy jox. bàyyi naa mu bu ñu joxee ba pare di nga leeral nit après. Eh, non non bu ñu joxee ba pare du ma si waxaat. <laughs> doo leeral nit joxee ba pare nañ ko bàyyi mu liggéey. Hmm. waaw mu indi affaire yi. ñu bàyyi ko dëgg waaw. lamb bëri nay coow tamit. waaw lamb bëri nay coow. mais duñu mës a jote dañuy wax nii rek. parce que c'est une famille Gaston mooy papay Lac de Guiers. Hmm. moo ko moo ko révélé. Hmm. mu génne Lac de Guiers kalaaf 2006. waaye xale boobu mu génnoon ba fayoon ko 20 millions kooku daa am fu mu tolloon léegi tollootul foofu. daan na Yékini ci diggante bi loolu rek doy na prétexte. dëgg la ak tey la dëgër daan na Yékini loolu rek yokku na cachet kon Père Gasson na bàyyiwaat xel te Père Gasson. waaw kay non na bàyyi ba Bantamba ma wax ko parce que dama koy bañ a wax. wax ko Sénégal Buzz 221 garaawul amul problème xam nga fi mooy lépp lu sénégalais bëgg buzz bi fii lay jaar wax ko Sénégal. Père Gasson bu dee da ngaa fàttali organiser lamb nga wax ñu ko yow bu dee da ngaa fàttali ni organiser lamb nga wax yaay xulóog mbër rek lan la père ñu ragaluñ la de de sam papa nga ñu ngi lay bëggee ñu ngi ci yow parce que ñëw pour defaraat vraiment mais bu dee da ma ma defaral la ma organiser la yaay sam papa nag amal jaam. ñu koy nuyu bu baax a baax baax moom it kenn la ku ñuy ndamoo ci lamba. Ah. mais eh, bokk ci sa moo indi affaire yi ci niveau bi. moom ak ñi fi nekkoon. Mhm. yàlla na yàlla defal leen jàmm papa Luc Nicolaï. Mhm. papa Aline Petit Mbaye sunu xel ci moom président de la république nañu dimbali ah ñeneen ñi fi nekkoon ñoom père Pala Mengi ñooñu ñëpp ils ont fait quelque leen defal leen jàmm. leen defal leen jàmm mbokk yi di kontaanaat bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ne dalal lool lañ ko ka ah, moom Mamadou ma ne yaakaar naa bi mu ci ñëwee ak léegi ñu fekk ko ci mu doon Baye Fall joo day yaatal ah ku ma gis baax a baax a baax di ko naw ci loolu waaye mosoon na ma wax wax joo xamante ne Modou yaakaaru naa ne xaw nga ko fàtte tuuti tey yàgg na jamono ji naan ma da nga ci làmb nekk yow xale say mu baay rek nekk fi léegi nga ñëw jamono joo xamante ne concurrence bi bëri na ak bu way léegi nooy dundee milieu bi. <laughs> du concurrence. Hmm. non non du concurrence damay dund sama damay dund sama sama sama sama droit sama sama NS sama droit d'NS dama koy dund. Hmm. parce que ñu ci bëri maa leen ci jiitu. Hmm. te nit boo ko jiitoo ci mbir. certes bu dee liggéey di yokk di ñëw. te yow nga jiitu ko ci mbir mi. da ngay liggéeyee nu tax moom mu xam ne da nga ko jiitu ci mbir mi mu bañ a ñaaw lépp rafet que dara ñaawul joxante nañu cër ñun ñëpp loolu bi ma koy wax yàgg na c'était ay 2010 maanaam damaa wéet ci milieu bi parce que man rek a ci nekkoon comme jeune mais tey jii alhamdulilahi rabil alamin y'a beaucoup de jeunes yu ñëw te loolu suñu liggéey moo tax doon ndaw bëgg dara ba tax ñoom ñi ñëpp ñu gis ñu bëgguñu maa ngi fàttaliku keroog bi ni daje parcelle man ak yow. te jour boobu sama kër lañ toog. jour boobu sa kër lañ toog duma ko fàtte mukk. dëgg la comprendre nga. Mhm. ñu ciy sant yàlla nag bu baax a baax. Mhm. di ñaan yàlla sunu borom ñoom ñi ci nekk ñëpp ku ci nekk defal sunu borom defal la ci lu ñu ci amul wala luñ ci amagul. ci barke alxuraan. parce que dañ cee dugg ngir wane jom dañ cee dugg ngir def fulla kon yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp ci barke yonent ci yàlla Muhammad yàlla nañ ci teral sunuy waajur waaw yàlla nañ ci teral sunuy waajur yàlla nañ ci am lañ bëgg ci àdduna yëpp di kontaan ci yow di kontaan ci sa teewaay di mm-hmm. kontaan ci équipe bi nga àndal. Sénégal Buzz 221 am ngeen élément boo xamante ni nii ñu ko bëgg a bari nañu. am ngeen bu baax boo xamante ne macha allah di gis nañ interview yi ñu ngi koy seetaan yàlla na yàlla def jàmm def ko ci réew mi di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi ñu dem gàmm ci jàmm te ñibbisi ci jàmm Serigne sëñ sëñ sëñ sëñ Babacar sëñ Babacar si Mansour mm-hmm. li mu wax ñu bàyyi ko xel mm-hmm. te dégluwaat consigne yi bu baax a baax a baax xam ne ñoom ñoo réew mi mm-hmm. diine ak politique ñooy doxal réew mi sëñ kar si li mu wax mm-hmm. na ko taalibe yi bàyyi xel mm-hmm. te di ko jëfee te xam ne moom loolu moo wax ci la sunu njëriñ nekk ñu koy jaajafal bu baax di kontaan ci moom di ko ñaanal mu yàgg fi di ñaanal borom mbég mi boroom taar bi almuntaxaa di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fi yàgg fi loolu balay sax di ñaanal Cheikh al Bekaay ma nekk ca Ndiassane di ñaanal maam Baye Ablaye bu yoof ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm di ñaan Sénégal jàmm sax fii jërëjëf